Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu tey nag comme ni ñu ko tàmm di leen ko defee rek chaque semaine daan leen indil benn invité euh, Babacar moo fi waroon teew mais dafa nekk si yeneen liggéey rien que rek pour bëggee leen yéen waa sunu mbokk internet yi te nag ni ngi fi ànd ak euh, sunu benn gan ñu ko woowee euh, Ambroise Sarr wala ñu naan ko Ambu coach équipe nationale dina waxtaan ak ñun nag si làmb ji si équipe nationale si préparé aussi gala bi nga xam deuxième édition gala bi nga xam ne moom mooy am Palmarin le 7 ak le foofu si si si palmarin si fu nga xam ni foofu la cosaanoo euh, coach maa ngi lay nuyu. maa lay fay Ndeye Comba eh, Leewtoo TV ci kanam rek ngeen di dem eh, yéen a xam lan ngeen bëgg yàlla na leen yàlla jëmale foofu olof yi neexul nag mhm. mais nag dañuy débrouiller rek bon yéen a ngeen bëgg yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi alors ngeen dem ci kanam nekk premier ci ci télé yi daal. amen coach coach nañ dugg nag si waxtaan bi waxtaan bi ñu koy dooree mooy coach fan la nekkoon ndax am na ay événement yu mag yu fi xewoon te gis na lu si mel ni euh, drapeau chef de si lan la nekkoon ba teewlu woon si événement championnat de lutte boobu di ba xam ne amoon na fi nga xam ne mooy Mbour. waaw coach de mu ngi demoon ba Suisse seeti suma doom yi nekk foofu parce que bi ñu installé foofu ba léegi seen yaay moo doon dem. ñu ne ah il temps nag ba il faut nga ñëw xam nga comme man dama bari ay ay activité ma tey ëllëg ba ngun ba ñu bëgg ci me daal ma ne naa fas rek yéen walis bi rek dem dëkkal leen voilà ma dem foofu def trois mois moo tax événement yi passé yëpp vraiment ma ko waa rate nga ko waaye war nga am benn aperçu si événement yi nga xam moo amoon gis nañu équipe euh, euh, Fatick bi nga xam ni moo doon jël cinq fois euh, drapeau chef de ren nag dem na wàcc na ba quatrième te ku ne Fatick xam ne équipe nationale lu si ëpp fa lay jëlee yi nga xam ne mooy mbërëm yi ndax nga gisee chute équipe de Fatick boobu. ah xam nga yàlla mooy maye parce que région yëpp ku nekk dañuy liggéey te yàlla nag ku may ndam yow yaay moom ndam. gis naa ne eh, lu yoo yoon la ñu war a perte perte nañu ci dignité vraiment eh, dañuy préparer at rek pour beneen yoon eh, ñu jëlaat seen place. ku ne équipe nationale ne équipe bu Fatick naka nga fas yéene taxawaata équipe bu Fat eh, équipe national bi nga xam ni lu si ëpp si ay mbërëm si équipe Fatick lay jóge waaw mais xam nga temps yi mun naa wax ne bu ma la expliquer day doon suppu kànja bu soobee yàlla bu ñu ci yàlla bàyyee xam nga lu ñuy wax suppu kanja ah njaago bi fii joolaa ba fale pël ba fale séeréer ba fale noonu lañ ko nar a doxalee ren. yan mbër nga yaakaar tey am nañu chance pour dugg équipe nationale parce que si mel ni tey général Malika gis nañu moom moo nekk meilleur lutteur en lutte gis nañu Franc déjà mi ngi si équipe nationale bi am na yeneen mbër yoo xam tamit ñi ngi wane seen seen seen mën-mën lu baax si si lutte simple bi. waa moo tax ñu tooguñu parce que xam nga 10 millions bi man ñëw naa xool naa. donc am naa ay repères yoo xam ne bu ñu nee suba dinaa fa jaar démb aussi maa ngi yoon gaal bi aussi gis naa yeneen xale yoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ équipe am nañ place ci équipe nationale bi donc vraiment ndey daal foofu moom bu fi jaaxle xam nga sa sa sa góor moom moom du mu sa jaaxle bu jógee rek am na fu mu war a dal. comme yan mbër par exemple. waaw xam nga bu dee poids lourds yi ñoom général Mandikam ñu ngi fi ñoom euh, Moussa Ndiafat mu ngi fi ñoom Franck ñoom Boy Faye bari nañ way waaw léegi coach yi gis nañu directeur technique bi kii di xam ne Abdou Badji taam nga di liggéeyak moom euh, dafa démissionné ki nga xam ne mooy Khalifa Sow aussi taam nga di liggéey moom moom moo ko remplacé ndax nga gisee Khalifa Sow mi nekk à la tête direction technique. waa xam nga démission Badji. li mu jiital ah, xel mun na koo nangu santé la wax ak xale yi mais xalifa naka jekk moo nekk seconde bu kii bu Badji moo nekkoon adjoint am donc titulaire bi bu demee adjoint bi bu taxawee war naa mun a taxaw bon yaa ngi wax titulaire su demee euh, Algérie mun na ñëw mais ñu bëri ngi wax ni que Khalifa aussi retraité na nu ñu remplacer benn retraite retraite remplacer ko ak koo xam ne partiquement lu ko dese tamit pour mu jël retraite euh, euh, parce que ex na est que tey jii war na woon privilégié jeunes yi remplacer ñi nga xam ne ñooñu mag yi. waaw mais affaire bi du question xale ak question mag mais mag bu fekkee ne xam na liggéeyam mais pourquoi ñuy wax ay xale ak ay ndew mais affaire bi noonu la rek. Euh, benn seen la rek kii day taxaw fii bu ëllëgee mu jóge fii keneen ñëw noonu àdduna noonu la bindoo mais doo wax ne rek ki xa mag la rek dafa war a dem xale yi taxaw non boo jëlee xale yi yëpp baaxul il faut nga jël xale ak mag nga xam ne mag bi muy indi xel yi ah, jox xale bi ba bi muy dem fekk balaa muy dem fekk xale bi ñor na xam jëlaat place di forme ñeneen nii ci suuf noonu la. est-ce que tey mi ngi préparé euh, ñi nga xam ne war nañ ko euh, tey remplacer tey defe tey toog ba ne man sonn naa dama dem noppalu ji kan nga yaakaar war na mën tey def remplacer la yow tey Ambou. waaw mais xam nga bari nañ fi ñi ma mun a remplacer mais xam nga du question ne Ambroise mooy wax ne diw moom may remplacer bu Ambroise seen CNG moom mooy seet ak ministère ak ministre bi. alors ne diw la ñu jël place Ambroise mais du embroise moom mun a wax ne préparé naa kii pour mu remplacer ma. kon nag noonu la ko gisee daa ko ci. waaw noonu laa ko gisee wax dëgg yàlla. yaa ngi wax léegi ne Abdou Badji nee na xale yi ak santé bi mais nee ñu tamit xëy na lu ministre bi waxoon il faut que nu changer direction technique bi xale yi jël place mag yi est ce loolu tax moo tax mu teel a jël matuwaayam démissionné avant nu naan ko nu koy pousser à la sortie. mais ministre bi biñ ko posé question man déglu naa ay waxam waxul ne kenn dem dafa wax rek mais ba léegi jëlul benn décision ne ku ku retraité dañ lay war a dax bu fekkoon ne moom mu ngi ci xelam mais mun naa bañ a jël euh, xalaatu kenn mun naa ñëw rek jël décision am nag ne nii lii li def parce que moom la fi yàlla teg coach nag nga gisee Franc ndax depuis retraite euh, retraite euh, euh, Reug Reug si lu simple bi moom moo fi teg tànk comme ni ñu koy waxee tey jii est-ce que tey jii yaakaar nga tey Franc tey il peut faire carrière def lu fi Reug Reug def si wàllum si lu simple. waaw mais mun na ko def ba déjà yow seet seetaan nga ko ci tournoi yi nga xam ne xam nga ñetti tournoi nga jël ko xam nga yombul mel na Reug Reug rek moo ko doon def léegi Franc nag nee na nag bo Euh, li nga doon def maa ngi koy bëgg def parce que bu jëlee dix million bi ñëw jëlaat jëlaat dem mbuur jëlaat ko cela fi dire que mu ngi ci raay bi. su jógee na si lu simple nag euh, coach na ñëw na si lutte euh, avec frappe gis nañu lu bëre lu bëre rëg-rëg di défier ñi nga xam ni mooy ténor yi ku si mel ni Gris Bombardier ku si mel ni tey ji rëg am na assez de wala caractère mën a daan mër yooyu même su fekkee sax def na fi loo xam ne kenn defu ko si lutte simple. waaw mais xam nga gis nga bëre simple. foofu la bëre bi nekk boo déggee fondation bëre mooy bëre simple mais pour pourquoi mënu leen a défier mun na leen défier parce que xale la te sport xale. est-ce que leen daan mun nga defaree mër mais est-ce que mun nga ko daan. waaw mais daan nag kooku yàllaa ko yor. est-ce que am na bagage technique pour mën a daan ñaari ténor yooyu noonu. bien sûr. yaakaar nga Reug mën a daan yooyu noonu. Bombardier ak Tapha Tine. ma ne ku daan Gris 2 mënatul bàyyi kenn. mais Gris 2 lu si Gris 2 lu si Bombardier ak Tapha Tine non non question xale la daal gis nga làmb ji bu la nax ndey fa gis nga xale moom mooy bëre. waaw leneen ñu ñëw nag si sa galaay bi le le 7 le 8 ak le 9 la euh, deuxième édition bi mise bi ñaata la fan lañ koy defee ak kan mooy parrain bi. waaw mais ñu ngi koy defee quartier Mbinjalan ma Palmarin Ngéej mais waa quartier Mbinjalan ñoom ñoo organiser làmb ji. waaw vendredi samedi dimanche vendredi bi dañu tegal xale yi ñaari nag ak trente mille francs samedi bi ñu tegal leen ñetti nag ak cinquante mille francs ci dimanche ba ñu jël sept cent cinquante mille tegal leen donc dañu bëgg ñëpp ñëw mais am na dafa am leneen lu ci bés lan moo si voilà parce que équipe bi nga xam ne ñooy defar licence yi dinañ ñëw. defar licence bi bu bees bi ak bu màgget ku ku koo xam ne amuloo mosoo am licence suffi ki nga indi sa certificat d'aptitude bi quatre photos ak cinq mille francs mais am nga chance pour ñu defal la licence au lieu kon ngay dem di jóge fan foo dëkk di ñëw dakaar surplace place mun nañ ko fee defee ñi nga xam ne nag renouvelé wuñu ah bu jour ba aussi ku ñëw aussi ñu renouveler la ko parce que dañ ko def yombal xale parce que xam nga xale yi ñu ngi bëri mais amuñu xaalis bi ñuy déplacé parce que ñëw dakaar te xamoo fa kenn rek déjà coono la boo ñëwee ñu ne bon suba nga ñëw tu es obligé xamoo fa kenn tu es obligé nga dellu fa nga jógee mais loolu la ñu gis nag eh, yombalal leen loolu. bu ko defee nag yombal boobu ñëw la woon ñu saisir occasion boobu ñëw en mas ñëw renouveler. pourquoi def ko Palmarin te def ko yeneen gox yi xanaa lu nekk lu ko ci nekk équipe nationale moo tax defal la privilège boobu. non du loolu xam nga chaque année wax dëgg yàlla bi ñuy organiser ba léegi dañ ma koy defal damay demander nag lu yàgg dama koy demander trois mois ñu examiner ko xool ko benn waaw ma door am droit nag wax ne ah ñii dina ñëw parce que ñi mu ma wax ne dina ñëw te du ñu ñëw waaw. ok sa gala bi yan mbër yu mag nga yaakaar daañu teew na ni ngi fàttaliku daaw ab euh, euh, Ablaye Ndiaye ñëwoon na mais gis nga nu mu demee bëriwul nañu dafa tardé jooy na jooy yu métti jëm nga sa intervenir si table technique bi mais yàlla def na daal comme ni ñuy wax rek Abdou Badji daal su ne déet ak déet lay doon. waaw mais xam nga question commission local la xam nga commission yi dañu bëri ci làmb dafa am CNG CRG. CRG ko organisé local ñu ñoon ci local lañ nekk donc lépp local bi li nga xam ne moom la ñu tëral comme réglement moom la ñuy appliqué mais ren nag dañ ko gën a oyofal xam naa ne nag ku ñëw moom ren moom amul tardé. mën nga xam pare bi kañ la fekkee am na pare wala boog da nga tëgg noonu rek amul am na pare boo xam ne macha allah ñu ko wax alpha si alpha si def di mbokk xarit ba pare nag nekk responsabilité politique ngin gi néew ba pare nekk euh, opérateur économique donc mun naa wax ne diggante alfasi ak séeréer yi benn lañu benn lañu moo tax wax dëgg yàlla ñu am audace fekki ko ba këram dem jox ko drapo bi première édition moom it moom ak waa dëkkam yépp bu bés baa dina ñëw xam si dëkk bi ñu jàppale ko ci côté yu nekk. est-ce tamit euh, invité yenn mbër yi ténor yi ñoo xam ne bëri nañ ba bàyyi ba bàyyi bëri est-ce que ñoom tamit ñu leen mën na leen xaar ci bis ba. waaw xam nga ambiance bu xewlee wax ko ci rajo bi wax dëgg yàlla rafetlu naa ñëpp waxuma sax ñi bëri ba bàyyi bëri mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci diggu làmb ji war nañu mun a ñëw. waa àll bi xam leen parce que xam nga waa àll bi dañ leen di dégg rek rafet na aussi ngay dem ci région bi ñu lay xam. mun nañu wax léegi nga par rapport a woo say mbokk si séeréer wala si wolof. mais fogole commune de Palmarin eh, mais xooyaa fop te ngar buftu na jifir boy ngallu ngeej ngunu maan bu am nu mbu dindi njom ne andone eh, quartier mbinjalan dewna organiser an parce que i mbara mbaro mbudra i njehe lak dara luduli njom donc o xano xewit na ni no ke rek caate fa lakas fe ka waro ret a fudit maana